sportif ak sportif. waaw maa ngi ñaan jàmm ñoom ñëpp bàyyi ma xeetu bëre bi man jël bi nga daan Lamine Sène ak bi nga daan El Hadj Ndiaye ordi est-ce que yaa ngi calculer loolu man bëre bi ngay bëre moo ma jaaxal quoi man man façon bëre bi quoi ordinateur bi rek jeexal na lamb jeexal na wax Babacar waaw bàyyi ma bàyyi ma bàyyi la ak gars yi. avance naa Thiaré maa ngi dégg ñëpp. yaa fi ne yaa fi ne Thiaré yaa fi ne. yaa fi ne keneen waaw waaw ndun jeeri fop xoolal caméra bi ndun jeeri Saalum bàyyi ma kenn. waaw ba sama gars yi Bawol bàyyi ma kenn. ba Bawol maa ngi nuyu Sénégal ñëpp. ba Niakhar ba Bambey. yaa fi ay ca sama gars comme ni koy defee rek léegi dañuy ñëw jël ki nga xam ne moom mooy Souley Sagne production ah mu wax xalaatam comme ni ko Djilass production defee wala le grand Souley Babou wala ñeneen ñeneen mu wax xalaatam ci li xam ne moom mooy nar xew wala moom mooy xew ci lamb ci instant yi toog amateurs yi di ko jooy mooy Souley tey gars yi dañuy tëgg ay lamb xoolal promoteurs yi yéen promoteurs yi ngeen tëgg ay millions doo leen gis mbir yoo xam ne lu ah, ñu koy waxee mbir yu ko jar avant tout d' abord le grand Souley ñu ngi lay nuyoo waaw Ndindy Fall TV maa di la sant Euh, di la ñaanal yalla fi nga tek sa tank yalla nako yalla yàlla euh, di nuyu sama pap di nuyu sama yaa di leen gërëm di leen sant di la nuyu bu baax ndax li ngay liggéey ci man santu sa fay dal ma nga lay sante di la gërëm euh, sa question bi ma poser moy problème mbër yi mbër yi dañoo ne ci jafé jafé bi metti mbër yi bëri am combat yi saison bi dañu am combat motax actuellement ni guñu mais amnañ ci yaakar novembre bi dinañ ci gis ay lamb yu neex ay lamb yu neex dina fekk mbeur yi bari yu bari pare da tellement yi mbeur yi bari pare wu ñu mbër yi bari dañu am combat lool moy indi galankor gi bi mais mbeur dinañ régler situation bi ba ñun amateur yépp ñu contane ñun promoteur yi ñu contane euh may gi may ngi ñu fi san ñu fi daje tey yëpp amateur yi promoteur yeeg di gërëm promoteur bi tay euh yas yas ya sant sar ma ngi koy gërëm diko ko sant nit ku bax la besam bi yalla nako jik yalla doon ay bési bési bés dal di gërëm Mbayang di gërëm Maodo fay waaw contane nañ ci bés bu baax baax bay jërëjëf le grand soleil léegi nag euh, bu ñu jógee ci loolu moom yaakaar naa bés yaa ngi ñëw ah. amateurs yi xaar leen ko Souleye Sagne production mu ngi waajal ay bés yu mag à l'avenir ah ci kanam ay novembre décembre janvier fii ba juin